Assalamualaikum warahmatullah. ko ci suuf ay asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk àddina mbokk man Aliou Diouf doomu Nguñaan bi ma leen di présenter sen émission bu bes muy Mbor dole Mbor dole nak di ngeen ko am fi ci TP TV télé bi nga xamné moy télé askan bi mom ngeen safo mu safo leen Mbor dole nak dinañ fekk si yi amateurs yi ba ci promoteurs yi ba ci supporters yi ba ci anciens gloires yi fekk si leen fi ngeen nekk waxtaan a yéen ci xew-xewu làmb lamu tey ak lamu dëmb ak elegum làmb mbër yi sponsors yi supporters yëpp ñu ngi leen di woo fii nii ci TP TV yi fas yéene waxtaan a yéen ak xew-xewu làmb ndax it làmb mooy mooy sunu mooy sunu cosaan kon il faut ñu amal moo tax waa TP TV choisir leen seen émission bi nga xam ne

aca si rahmaani rahim asalaamaaleykum asalaamaaleykum wa rahmatullah euh, ñu ngi leen di nuyu si aar bu baax a baax a baax ñi ñuy safoo di seetaan TP TV ñu leen di bu baax a baax di amaan mbégte bu baax tamit janoo janoo ak yéen ci seen émission Mbor Doole comme ni meen ko ko waxee émission Mbor moom dina am chaque chaque jour bu 18 heures jotee jàpp 19 xam naa tey moom dina xaw a am tuuti retard mais xam naa nag di ngeen ñu ko baal tey ndax it sama gan yi fu ñu def daf dafa xaw sori trop mais tamit maa leen di masawu coono bu baax a baax a baax muy euh, tey nag maa ngi invité benn champion benn champion boo xam ne nee na champion la mais nag ah xam naa na ci xam dara Mbéga Ndour maa lay nuyu. Mm-hmm. tasaare ko ci Sénégal yëpp ak àdduna bi mm-hmm. xamoon di sant suñu ñaari waajur mm-hmm. di sant ñëpp xamoon di sant bi ñu jógee Grand Dakar ñaari tali Grand Dakar yëpp mm-hmm. di sant waa koy jëlaala Fall xamoon ñëpp daal njaago yi moom bambara yi soose yi ñëpp séeréer yi bokk séeréer yi bàyyi ñu kenn waa ñaari tali Grand Dakar bi yëpp di sant sama waaj yi dafa bëgg gars yi àndal yëpp ñoom Malick xam nga Abdou Serigne ñoom Mori boo Sadi bu gars yëpp xam nga Lamine ak Marissa gars yi sonn na yoon bi trop mais jaay ñu ba dee si xam nga dañ ay coono yu métti ci yoon bi xam nga kon ñu ngi sant ñëpp sant la suñu benn mag Mamadi Ndiaye bébé sos xam nga si kanam ñu yàlla jërëjëf kempe ga ndur kay yow ni eh, nga yow ni yow amna solo trop tamit maa ngi nuyuwaale tamit sa gars yi nga àndal yëpp xam naa que naa ñëwaat kay seen turi kay ñoom ñëpp sambi benn côté bi maa ngi ci am Moustapha Moustapha maa lay nuyu. waaw ñu ngi fay di la sant di la gërëm si invitation bi. Mhm. di sant kon di ñëw waa di sant sama mbokk Tuubaa ak waa mbokk Bawol mhm. di ñaan màggal gi gàmm gi mu jugee yàlla suñu borom nangu li ñu ñaan yëpp. di sant booy yi ma àndal ñëpp samay rakk lañ waaw boo xoolee quoi di sant mbër bu baax nag ne <laughs> ko di sant mbër bu baax nag parce que xam na yàlla ba ñu boolee yàggul mais suñ borom dafa def mu jël ma rek def ma ci boppam ne lépp yow la su ko neexoon tey ji maanaam lii am nay mbokk quoi mënoon na ko yégal ñeneen mais Serigne waa xam na ne dafa ñëw ba si man wax ma ko ma ànd ceeg sama rakk koo xam ne sama doom baale moo nekk ne toog ànd samay xarit ñu ñëw xam nga teewale ko kon lii dafa rëy si ñun quoi waaye ñu koy sant di ko gërëm di wax nag man nag du ma mbër di ko wax waa ligne bi man fer laay jaay képp ku bëgg fer rek képp kuy soudeur waa su ñëwee jaay sama numéro 117 204 waaw mooy loolu. comme yéen yéen tamit ngeen a woote kay numéro bi serveur bi muy 78 468 01 36 78 468 01 36 Mbégane Ndour. allo. ñu mën a xam kan mooy Mbégane. waaw Mbégane Ndour benn xale la rek. Mhm. xam nga dugg ci làmb 2020. 2020 mhm. bi. Mhm. xam nga xam nga làmb moo ko yitteel quoi. xam nga mu def ci léppam. mu yàqal ko lu bëri tamit. sax parce que nit ki loo bëgg rek. Mhm. xam daf lay yàqal quoi. Mhm. door a xam ne yow lii jaral na la. Mhm. xam nga te dañ ci bëgg dem ba au sommet. parce que loolu la ñuy ñaan yàlla. parce grand champion yi ngay dégg yëpp fii la ñu commencé. comprendre nga. di profitoo rek bala ñuy def dara xam nga parce que xel day fatu. at yi ñu génn dañoo am ay décédé koñ ba. ku ci mel ni Paa Sow Papaye Pël. sunu papa la woon dañu doon ci lu bëree bëri. Mhm. xam nga yàlla def mu wàññeeku. Mhm. ak tafa mi seen benn mag dafa mhm. wàññeeku ci ginnaaw. dëkk Touba. di leen ñaanal suñu borom ak sëñ Abdourahmane Tilala Fall. parce que seen koñ lan nekk kii Lamine mi jarbaatam la. xam nga. ñu bëree bëri danoo wàññeeku ci koñ bi. xam nga ak fi nu dëkk. di jégaluwaat bu baax a baax. foofu lañ waroon njëkkee. xam nga waa Bawol. di bëgg ñëpp waa Ndengler. xam nga waa Ndono Njamaan. Mhm. fàttewuñu leen. Mhm. xam nga mhm. parce que bay sa wewu tànk la ñu wax. kon ñu ngi leen di bëggee bu ah, baax a baax. di leen siyaar lu mu wax loolu rek. comprendre di leen wax ne seen doom la nañ jàpp. incha allah léppay baax. asalaamaaleykum dafa mel ni dafa am ku nekk ci ligne bi de. comme mbër li mu wax cee bëgg wax tuuti. dafa mel ni am na bi de acca mën a mën na ko dégg naa ko ñëwaat ci jaale tuuti rek. Mm-hmm. di jaale Serigne Abdourahmane Fall Tilaa lu baax. Mm-hmm. suñu wasila la suñu kilifa la ñun ñëpp. Mm-hmm. di jaal waale sama mag ak sama rakk yi. yàlla jël. ak ñeen fa fekk ak ña fekk. di jégaluwaat ñëpp comme bu ni ko waxee foofu lañu ñu waroon jiitu ndax. kooku mooy kilifa koñ ba quoi. jégaluwaat baax. di ko jaale di ko jaale doomam. Mbër sama question de tontu tontu woo kañ mooy kay Mbégane Ndour waaw Mbégane Ndour comme li ma la wax rek. benn xale la nekk ci làmb ji. Mhm. xam nga débuté. boo xam ne deful dara daal. Mhm. waaw débuté deux mille vingt. xam nga mhm. nekk ci làmb di béy waaram. xam nga amoon ay tolof tolof daaw. xëy na saison bi am na mu demee quoi. mais ren incha allah teel nañu waaj. di xaar promoteur yi incha allah. mais Mbégane Ndour lan moo la dugal ci làmb. waaw làmb nag xam nga dafa nekk sama doom quoi. parce que xëy na destin la ci ñun. parce que nekku woon suñu loo xamante ni moom lañ bëgg. Mm-hmm. mais dafa dem a dem ba nga xam ne lii. Mm-hmm. ñun dañoo toog xam ne lii moom lañ bëgg quoi. Mm-hmm. xam nga mu yàqal ñu lu bëri tamit. ci sunu àddina mën na ne. xam nga yenn liggéey sax mënuñu ko liggéey ndax làmb. kon loolu jaral nañu. te duñu bëgg képp ku ñuy jàppale mu jàpp ñu ci làmb parce que ñun loolu lañ bëgg. moom la ñu opté quoi. xam nga moo tax ñu ciy sonn guddi ak bëccëg. heure bu ne la ñuy jóg di dem entraînement. ak sama gars yi nii. rawatina ñi nekk koñ ba. yàlla xam na ni ñu nekkoon ba ñoo ñu bëggoon ñëw fii ñoo ëpp fuuf. Mhm. mais xañ na waruwaay moom mu yemul quoi. Mhm. mais prochaine fois incha allah di yaatu bu baax. Mhm. di bëgg waa kafe gi yëpp nag. waa kafe gi koñ ba. ñëpp ñu ngi leen di bëggee. instant yi ñëpp ñu ngi toog dina teewlu. ndeysaan euh, mbër xam naa sax balaa may ma ñaat yow mbër yow am nga ñaata combat. waaw man trois combats laa def. trois combats. trois combats. mën naa ne euh, benn victoire. Mhm. beneen combat bi dañ ko daan. Mhm. xam nga mais arbitre yi ñoo kii lii bi quoi. dana daan rek. waaw. Mhm. non demee woon noonu sax. demee woon noonu demee ko. danoo daan ah, xam nga gars yi bàyyi. non que CNG xanaa kon. dañoo xeex rek arbitre moom si la maître de terrain. yaa ngi dégg. ñoom lu ñu rek mooy loolu. waaw kon yow dina daan rek nangul loolu nangul la. nangul yow mbër. waaw Moustapha. tamit nan ngeen di. dundee ak euh, champion koñ ba. waaw champion. maam dañ koo may jàmm ak salaam rek. maam fajar gi bu jotee mu ne mu entraîné. ngoon gi tamit. bu jotee ñu ne ko mbër mu ne ah, ñu ne ko demal entraîné. bu ñëwee entraîné ñu toog. Mhm. xam nga kër ga. Mhm. koñ bi booy yëpp. ku fa mhm. am lekk génne jox ko mu lekk mhm. parce que mbër mu ndaw moo yite la loolu quoi mhm. fii ñun ñëpp a koy jox mu lekk jox ko mu naan bu heure tëdd jotee xamoo ñu ne ko mbër Baay Faal dama nga tëdd parce que ñun daa am lu yaakaar si yow quoi parce que ñaari combat yooyu mu wax ne daf ko ñàkk yàlla xam na ne ba mu koy bëree amaana ñun ñii ñëpp xamuñu ko woon waaw yàlla suñ borom daf ñuy doog a boole ñoom te incha allah bu amaatee combat dina demee neneen si kàttanu yàlla waaw loolu la ko wax nan lay demee no ma waté on ndam rek bark serigne salou mbake ndam kay bu demé nan bil jël bu set wéti ndax yeen ñëwa togaat fi man ndax tamit yeen wa ñaari tali deug na tamit yeen yeen sen lambu de bay ay violence de yeen wa ñaari wa inshallah no xam nga mbeur lambam amagul violence mhm. musul am am violence no ñaari tali mom yeen da ngeen di ki mom mais dama ne la so combat dama yeen wa ñaari ñaari tali la wax non gars ah, dañuy tooñ rek soo gisee loolu ñaareel dëkk bu mag la quoi. gars dañuy tooñ quoi boo nekk Grand Dakar. Mhm. képp ku nekk si town bi xam nga Grand Dakar. mais nag bariwul ay champion moom. Mhm. bi dee ko dégg noonu. Mhm. que ñun xam nga boo ñëwee de Grand Dakar. ay noobal lañ sax day xëy dem Dóori waar. ay noobal lañ amul kenn koo gis koo xam ne day ñëw Grand Dakar taxaw ci boppu koñ nii. ñëpp dañuy Dóor waar. sama gars yi nii ñëpp tuut. waa Grand Dakar nag. fa may liggéey leen sant bu baax. Mm-hmm. kon c'est normal ñu ne Grand Dakar. Mm-hmm. mais jàmm ak salaam lan xam. xamal mm-hmm. liggéey. waaw di béggawaat gaa yëpp waa koñ noonu. mbër yow nee nga am nga trois combats benn victoire taqale. waaw ak ak ñaari défaite. mais loolu lan lay def kay ci mu daaw ko tegle ay défaite. waaw ñaari défaite parce lu baax la ci ñun parce que xam nga boole woon naa boole nañu ak ay nit yu bëree bëri tamit. Mm-hmm. wanaat nañu lu bëri ci làmb. njàngat daf jàngat parce que boo gisee ñaari combat yëpp tuur. Mm-hmm. sama deuxième combat man ak Siteu bu Songaan Gueye ñoo ko bëree. Mm-hmm. yaa ngi comprendre. Mm-hmm. bëreew nu cinq minutes. te la fa mm-hmm. def lépp ñun ñoo ko am. Mm-hmm. ñoo li fa am lépp ñun ñoo ko def. comprendre nga. yàlla dafa def ñu bëre. xam nga yàggul ay quelques secondes ma wër ko ndomba yëkkati ko ba koy buddi sama tànk glissé ci baas bi. noonu lañ ñàkk victoire mais defet defet la rek. defet daal defet la rek. waaw am na mu mën demee rek defet la. mais am nañ ci ay jàngat. ba tax na fi ñu jëm ci suñu kanam. xam nga dinañ ci defaraat lu bëree bëree bëri. xam nga. mbër bis bu ñuy ñëwaat stade dina demee neneen. mbër yow comme ya, ah mën naa bañ a demee nee ni sama plateau moom daa neex kilim bi gars yi ñaari tali koy dara la nga ngi nekk fii di wax ndax moom koy bu ñu tijjee bari moom ko yéen ñaar da nga fay dégg mafia bi yow kay day toog xaar il premier combat yow noo ko dundee. waaw sama premier combat waaju ma ko parce que man boobu jël woon ma intention pour bëre arène. Mhm. dama toog maa ngi école de bëre Mm-hmm. xam nga passage di nuyu sama grand yi nekk foofu. Mm-hmm. dama toog xam nga président école bi ñëwoon fa di def visite école bi. Mm-hmm. benn mbër bu mag bu fa nekk. mu ne ko bala ngay jox benn combat booy. fii ci école bi. da ngay jox Mbégaan Ndour mu bëre ba pare parce que moom moo fiy njëkk entraînement. aussi du daw contact tamit. noonu la sama combat taxawee ñu ne ma boo ñibbee demal nga defar seen sànq nga ñëw bëre. yàlla def ñu bëre man ak Papa Sow mu mhm. écrit Ndiaga Sarr mhm. yàlla defal nu ci ndam mhm. xam nga mënuñu ko suñ borom moo nu defal ndam xale jigéen ñi dar la ah jigéen ñi kay dar la rek waaw ñoo ko daan sax mais dama ne mënuñu ko suñ borom moo nu defal ndam comprendre nga parce que champion la tamit bi ñu koy daan trois combats la teg la trois victoires quatrième combat laa ko daan mais loolu lépp kattanu suñu borom la xam nga xooluñu ko loolu lépp défaite yi ak victoire yëpp suñu ginnaaw la nekk instant ne suñu kanam lan te am nañ ci njort nee dina baax. Mhm. parce que loolu ci liggéey bi lay doon quoi te ñun ñooy si. Mhm. waaw mhm. ñaan suñu borom rek mu defal nu wér. xam nga ak tal ba incha mais mbër yow dëgg naa ci sa biir wax nga ne écrit barajon yow nga nekkoon. foofu laa nekkoon waaw. lu tax yow nga jóge fa. waaw defet yee métti wala. non du question defet bu métti sax. defet yee métti xam nga bu ci. non du loolu sax. xanaa yàlla kon matla bi foofu. non non parce que ren lañ fa génn sax. grand mhm. barke Serigne Saalum Mbacke la waatal. Mhm. fekke ñi me entraînement ci moom la fekk bu baax. Mhm. mais dafa am lo xamne rafetul. mbeur warul nek ci sa égérie di di entraîner. ba jour combat am jot. muy bëri geesu gisu la yow misère écrit wala ñu wara andal ñu ñëwuñu. yaa ko tontu la yow. waaw waaw. non loolu xagna mom mënu ko wax quoi. motax ma waxal la ko. moo man ma amul ma may négocier dama la kay wax. motax yeen yéen yéen waa kii ñaxitale ke gën récupéré ko wala. waaw moo tax ñu parce que xam nañ ne xale la. Hmm. te luñ te luñ bëgg si mbër mi eh, si moom kii paa la. <laughs> waxal leen non dañuy xam ne xale la continué continué dañuy xam ne xale la. te liñ mhm. bëgg si moom liñ bëgg si mbër mi ngi si moom. Mhm. te incha allah rab gis nañ ni ku ko jàppale mu dem. Mhm. moo tax ñu ne ko daaw lañ bëggoon mu bàyyi. mais ay problème kayit moo ko fa téyewoon. woon sant ñuy nuyu à part suñu grand pec. borom écurie Grand sant baax di ko gërëm. moom tamit mu dox si ay ceebu jàppale ñu bu baax. ba ginnaaw tey mbër ñëw foofu. fekk maa ngi koy nuyu borom borom Grand Dakar. di nuyu sëriñ mi tamit ñoom ñaar ñoo bokk écurie yi. borom baax la dafa bàyyi itam yëpp ñu ànd ak ñun. xam nga mais ma Mm-hmm. waaw ñun mënuñu yor suñu mbër. Mm-hmm. mu nekk si écurie. pour mm-hmm. maam li li def li war ci moom dëgg-dëgg defoo ko ba pare mu nekk mbër mu ndaw. te ñun ay bool-bool lañ. te suñ mbokk la. kon war nañ ko mën a récupérer parce que mun nañ ko jàppale. looloo tax ma ñëwaat kat ci yow. tontu bi. waaw idole de li tax ma jóg. xam nga jël yee bëri wala. non jël yu bëri. defet bi. parce que jël moom foo mën nekk bu ko yàlla tuddee si yow day nekk. ah mais jël dañ koy liggéey ko kon nga yow daal entraînement. non non du loolu. Mhm. parce que bi tax loo boo gisee li tax ñu jóge fa. Mhm. xañ na nekk nekk nañ fa daaw saison bi ba mu jeex. Mhm. première com benn combat lañ fa bëre muy mois de décembre. suuru combat Baye Mandione ak Xoyantaan. mais yow sooy dem guerre. xam nga. ki la war a préparer pour nga dem guerre. préparer wu la. première fois. ngay war a dem ci guerre comprendre nga suur si suuru sa coach su ñëwul mm-hmm. bi coach bi wara tok vite la def mm-hmm. mbeuri la wara accompagner pour ñu dem ñewuñu mm-hmm. loolu lan nga mëna jangat fofu ah parce que bëgg na la ah waaw non non <laughs> am même bu nu kenn toogut gëm-gëm bi nekk indi mais dama tok Grand Dakar sama serigne mi du ma bàyyi hmm mbeur la comme man. serigne ba serigne bi ni ndiasse numéro 2. <laughs> yaa comprendre. ma ree way fep fuma dem ñoy and hmm mais Grand Dakar bi ko dajal dana lan mo tax yow ñibbisi woo Grand Dakar. hmm dafa am lu ñu sendu ci yow. hmm comprendre nga. hmm kon yaakar bu ñu am ci ma yow. hmm pour man war nga mëna ñew delo len jukal hmm comprendre nga. Mhm. ren nak ñu togg sama staff ñu waxtaan ñu ne da ngay ñibbisi. ma mhm. d'accord ci loolu te man mhm. gis naa yéene bi ma bi nga xamante ni moom la am si man. Mhm. kon mënoo lu dul delloo leen loolu. ndeysaan waa Grand Dakar daal kon ñoo la jël si. voilà ñoo ma jël si ma ñibbisi. nangu naa la te incha allah dina xam ne doomu Grand Dakar bi ñibbisi na. ndeysaan tamit <laughs> noonu laay kay nuyoo <laughs> waa Pikine bi ma jógee maa leen maa leen nuyu baax a baax di nuyu kay Fatoumata njaay maa leen nuyu baax a baax di di nuyu ñoom ñoom Aliou Dione DG Ngunjaan Karo maa leen maa leen nuyu baax di nuyu Tim sama njaay moo doxanaan maa lay nuyu bu baax a baax a baax ñoom Badji Faye euh, maa leen nuyu bu baax ñoom euh, VSN entreprise kay euh, kay kolaan batiment maa lay nuyu bu baax a baax a baax ci borom terrain yi <laughs> maa lay nuyu bu baax di nuyu la diva la diva séeréer kay maa bu baax a baax mbër ba léegi rek ci yow laay des ah, ndax it wax nga ma yow sa premier combat ñoom seen mm-hmm. yow defet bi bi nga xam ne si jàngat kay ci defet bi waaw defet bi moom jàngat nañ ci lu bëri. jabar bi mhm. xeex rek moo na ko perte loo. xeex waaw te loolu lépp dafa am lu muy jàngal. pour pourquoi saa yéen bawal bool yi ngeen bëgg xeex ko waaw mais xam nga xale bëre entraîné ñëw taxaw. Mhm. day jàpp ne bu ne képp. dóor mais yéen yéen moom dóor rek. waaw bëre dóor lan wax. Mhm. mais xam nga rek wala tafaatin kay moo leen yàq. non tafaatin sax parce que tafaatin moom. li mu jël pour yoonu boppam la. xam nga. Mhm. kon ñun suñu yoonu bopp lañ jël. Mhm. mais xam xale bu entraîné ba ñëw. Mhm. day jàpp lépp lu ne si kanamam moom moo ko mën. dafa loolu erreur la. parce que làmb defet lañ wax. boo tegee sa fees sax jeex na beneen yoon rek. xam nga loolu jàngal nañu lu bëri. pour prochain combat bu ñëwee. xam nga dina ànd ak dal. pour lépp bu ñu gisee lu leer ñu def. xam nga. ba kër yàlla dinañ may ndam quoi. loolu la rek defet yëpp loolu la. dëgg la defet yëpp loolu mais mbër. lamb torop ndax it am nga beneen métier sans làmb. waaw am sport yàggul am naa métier mais mm-hmm. instant yi nii nekkuma ci métier bi. Mm-hmm. xam nga cordonnier laa damay mm-hmm. defar daal. et moom laa jàng depuis Medina. moom laa jàng xam nga moom laa suivre moom laa xam. mais dañuy xëy dem tóori waar parce que tollooguñu benn niveau bi ci làmb tamit. xam nga. il faut nga dem joobi ji pour am li nga mën a defaral sa bopp. comprendre nga. loolu moo tax mais dañu ñaan suñu borom fekk ay at ci kanam rek. Mhm. ñu bàyyi liggéey ba concentré ci làmb. Moustapha waaw ah. conseil mbër ndax da koy wax moom xale la nangul naa ko ko ndax it euh, moom la. Mhm. tamit comme jóge na ci benn écurie mhm. ñëw ci yéen yéen waa Grand Dakar kay ngeen récupéré ko. Ah. tam lan ngeen ko mën a conseiller en tant xale yéen. waaw mais mbër instant bii. béykat kare gu tuuti. instant bii nii nii nii. nuñ koy conseillé. lenn ka la. mën naa ne sax. si leen dëkk quoi. mooy entraînement yi ñu koy def la mu gën koo fonk. di woo sama mbokk bool-bool yi tamit. aussi ñëw jàppale ko. parce que gis naa ne amut ay jàppale. waaw di wax gars yi baax ñëw jàppale ko. loolu rek moo ñu manqué. mais entrainement lépp. mi ngi ci. instant lu ñu ko gën a mën a conseillé lu ñu ko gën a bëgg conseillé. mënaguñ ko conseillé tant que jëlagul combat. nga jégal ma mais mënuñu ko wax mm-hmm. fii mm-hmm. ndax loolu dañ ci war a ànd ak moom ba mu jeex tàkk tàkk mm-hmm. di wawaat gaa yi tamit ñu ñëw jàppale ko waaw parce que soxla na jàppale Mbégaan Ndour nan nga dundee ak supporters yi waaw supporters yi moom yàlla suñu borom def na ak jigéen ñi xale yu jigéen yi ndax temps yi ñëpp rek boo nee supporters ñëpp nga wax xam nga waxoo mbag waxoo gaa ngi reede waaw daa mel ni yow yaa ngi kii ah dama ne dama am ay nit ñi nga xamante ne moom la ma yàlla booleel mun naa ne duñu ay supporter mhm. parce que ñi nga gis ni ñëpp ñooy yeewandoo ndeysaan ñooy yeewandoo benn ko mhm. naanandoo café mhm. toog waxtaan def lépp ndeysaan man amul benn doomu aadama bu may gënale ci kenn wala ma am dara lu may jaay doomu ndeysaan nit parce que ay doomu aadama lañu muy succès muy dara ñun loolu nekkul ci ñun parce que dañu jàpp nañu ñun ñëpp benn lan amul kenn ku gën kenn ndeysaan comprendre nga kon suñ yi passé yëpp li tafaa wax rek wax dëgg fa yàlla mu woon ñu jàppale. xam nga. dañ xam naa ne moom yow moom dafa ko mbaa yow nee naa jàppale ndax xam naa ay ñaari kaar rek ay kaar rapide. non dañ doon yóbbu lépp ñaari kaar sax. yow mais ñun. groupe bi xanaa ak ak seen waa kër. fi ñuy séntu suma supporters yi nekkul mhm. foofu. ñaari mhm. kaar yi. Mhm. nekkul foofu. incha allah danoo bëgg bu ñuy demati stade mhm. di yóbbu lu mat ay vingt car di duy stade bi comme ni ko gars di defee parce que suñu morom yi nekk ci làmb ji di mobiliser ñun gënu ñunu mhm. mais loolu dafa laaj jàppale jàppale waaw waaw parce que combat yéen passé yi yëpp mhm. jàppale bi demee woon noonu problème mu añ sax bu nee suba la combat la ñuy nekk di ko mais wala gars yi kay ñu jàppale la comprendre nga mais gars yi ñëw jàpp ci incha allah xam nga parce que prochain combat moom yaakaar naa ne terre bi sax la ñuy gaare Dakar pour mu jëm si arène nationale. ndeysaan. Mhm. bu soobee suñu borom. Mhm. parce que ñu ngi ciy xamal liggéey ak suñu staff ak suñu lépp. Mhm. di profité di nuyu Tafa Boy Bambara. waaw suñu grand nga mu ngi nuy jàppale. ak Père Beck xam nga ak Père Mbaye Faye. di bëggee waa écurie Grand Dakar bi yëpp. ak Père Daaw yu xam nga daal. ñu ngi leen bëggee bu baax. parce que am nañu yéene bi tamit. loolu Mm-hmm. Wow, di bëgg ñëpp daal mm-hmm. di waaj prochain combat rek di wax mm-hmm. promoteur ñu ñëw xam nga combat bi taxaw ñu commencé liggéey bi waajal ko comme ni mu Moustapha foofu laay ñëwaat ak yéen ndax comme xëy na yéen a nga feet ak grand nan ngeen di dundee ak supporter yu yi waaw di wax ak ñoom wax ju di wax ak ñoom wax ju tamit xam nga mhm. mënuñu leen imposer doole mënuñu mu leen jaay réew ne parce que kenn nit mhm. bëgg la rek mhm. maanaam lu rëy la quoi yaakantuma sako sutuma laak boo jugee ñëpp jug te ñun suñu waa koñ dañuy ñaan di sant di di nuyu Kiné Mbaye Kiné Mbaye maa ngi koy nuyu bu baax parce que combat bi jàll fekkee ma ko mais yëg naa lim fa def yëg naa lim sonnee magu pàmbu mhm. waaw di leen ñaanal rek supporter di leen ñaan ñu da leen ñaan rek mhm. combat bi di ñëw barke mhm. Serigne saalu bie bi ak tiset yi lépp insha allahu yi ñun bool bool ñoo koy gérer leen rek lañ am suñu leen ñaan moo ñu ñëw dugal suñu oto dem ci saat que ñoom ñoo ñu mën a may doole ñun fu ñu bëgg a yóbbu ci làmb entraînement yóbbuñu fa liggéey bu metti ci la bokk mais li ñu gën a mën a may doole mooy supporter kon yoo ñaawaa ñaareel ñëpp di woo waa koñ nante di woo waa koñ bu Mm-hmm. waaw di woo ñëpp. Mm-hmm. waaw di di di nuyuwaale ba grand ko ñoom Garda Ndiaye Mouhamed. Mm-hmm. ñu ñu fa bàyyi si koñ ba quoi. di nuyu bu baax di leen sant. ndeysaan noonu laay nuyoo tamit kay waa Medina maa leen nuyu bu baax a baax. Abdourahmane Sène maa lay nuyu bu baax ak culturel ndeysaan rek jaag maa lay nuyu bu baax a baax mu nit mu nit ku baax Assane Sène nguñaan bu bees tamit maa lay nuyu bu baax di nuyuwaale kay yow sa rakk yow sa xarit. soxna may seen maa ngi koy nuyu bu baax a baax nuyu waa Medina Bamba cosmétique ma lay nuyu bam mbaytin nuyu nuyu naa bu baax a baax ñoom Saliou Ndiaye Rose mbaytin tamit maa lay nuyu bu baax a baax a baax nuyu waa Medina yëpp bàyyiwuma kenn maa lay nuyu ñeen ñëpp asu sama rakk ji yow tamit maa lay nuyu bu baax a baax a baax mbégaan ngi dox sa combat waaw ñu ngi dox suñu combat mm-hmm. waaw am nañ ci yaakaar ne fekk ay fan rek incha allah dina taxaw yàggal non waxaguñ ñu ñu ñuy proposé ay adversaire nag. xam naa xam nga man moom ñoo ëpp ay adversaire ci lamb yi. yow mi doon waaw. sax bu ñu jëlee day daanu. fu mu koy jaar kii yow. wa waa jama gën ñoo gën a xëcc. Laurent ñoo ko ci waa ñaari tali. barke Serigne Saliou ñoo ko mën ñoo ko doole. Mhm. barke Serigne Saliou. Laurent Ndiago moom nga waxate kii maanaam. bu ñu bu ñuy wax mbégaan mbégaan xool nga kii ak Laurent Ndiago waaw non xaw ma Laurent kii laa xam kii laa xam lu muy entraîné kii laa xam lu muy liggéey xam sa waay sa waay laa xam boppam <laughs> kii du wax yaa koy waxal kii sañu toog ne gis nga ñu la am di wax rek mhm. mais Laurent yàlla xam na ne su ko fi kii tudd woon duñ ko fi tudd ah seen borom ndax ma raw ci làmb déggoo li ma sax kay tudd ko fi ndax voilà ñun fi ñu non lu tax ñu tudd Laurent Ndiago. Mhm. parce que ñun daa ñu bëgg dem si làmb. Mhm. te pour ñu dem. Mhm. il faut yi ah, siiw yooyu noonu borom tur yi bës bës waaw ah, waaw xam ngeen ne maanaam xam ngeen Laurent moo leen man mais mais mais bës bi quoi. waaw bës si non Laurent mënuñu de. mënuñu de dañ ne la lu tax ñu bëgg a bëreeg Laurent. mooy siiwaay bi. looloo tax ñu bëgg a bëreeg Laurent. maanaam mooy bës bi. non du bës. Aliou ñun ñoo ko bës Laurent Ndiago taxunoo jóg. magam sax taxunoo jóg. liis yaa ngi dégg ñun dafa am suñu yoon ci làmbo te ñun dañuy jëli ji loolu. parce que suñu gëm-gëm la. yaa ngi dégg. ñun amul benn bër bu ñuy taxaw naan ni di ko may bës wala yu demee noonu. ñun affaire bës ak yooyu sonaluñu. comprends nga. waaw nag loo xam ne parce que Laurent ñoo ko ëpp bës foofu. barke Serigne ñun ba sonaluñu. billaahi parce que dañu jàpp ne képp kuy suñu morom ci làmb ji takk ngéem rek. Mhm. ñun war nañ mën a bëre moom. te yoon boobu dañu ciy jaar jaar xooli leneen. Mhm. kon ñi ngay gi wax noonu ñëpp xañ na ay mbër lañ tamit parce que nit kenn du ko xeebal li mu nekk. Mhm. ñu ngi bay seen waar macha allah. oui macha allah lambo xam na leen. comprendre nga. mais ñun voilà ñun mën na ne xam nga eggaguñu benn niveau bi ci làmb mais loolu dañ ci teg suñu bët ñun. parce que suñu gëm-gëm la. dañuy takk dem jëli ko. Mm-hmm. incha allah. Mm-hmm. yow kan nga soxla. man ba déggoo la ma la du ma toog di laaj benn adversaire parce que adversaire yi instant yi nii suñu morom yi. yow sa adversaire sax xam naa bëriwul moom. Aliou aka bëri sax <laughs> parce que ñun boo xoolee suñu sénération ci làmb instant yi nii. Mm-hmm. ñun ñoo adversaire ci làmb ji. ah yow ñun toog di am problème combat. xanaa neex a taxañ rek. voilà ñun maanaam ñun taay bi nu nekk nii. xam nga parce que kuy Mm-hmm. kuy peese ay soixante-quinze kilos. Mm-hmm. yaa ngi dégg. Mm-hmm. kon taay boobu pour nga bëre yu jafewul quoi. yaa ngi dégg. mais dama ne la maanaam doo toog di laaj benn adversaire parce que mbëri lenn moo ci nekk koo toog laaj ko mu ne da nga ko préparé. xam nga wala ay kii nii affaire bës yu demee noonu te ñun doxuñu ci yooyu. Baba Jaxal dafa mujjee bëre daanu nañoo ñu bëre. kan di Baba Jaxal Baba Jaxal men. Baba Jaxal men. bu jàmm gën. gis nga nag Moustapha. barke Serigne Saliou Moustapha xaaral yow ku mënoo toog sama palaato singal yi kay benn ikki yi nga xam ne maanaam ñoom ñoom lu def ci lamb est-ce que ça. waaw ba ba jaxase est-ce que. parce que borom kiy tafa ba. laa lay wax tey laa lay wax dara de. gis mbër mu ndaw. Mhm. bu bëgg a bëre bëgg a gaaw a sori si làmb mhm. dugal jàmm gën. Mhm. mbër mu ndaw bu bëgg a sori gën a bëgg a gaaw génn ci làmb dugal jàmm gën. am fa ñaari combat ba ñett. ñëpp lay xam. Baba Jaxal pare nañ pour bëree ak moom eh, barke Serigne Saliou. mbër. Mm. da nga si waay. waaw si waay eh, yooyu ñooñu ñun teguñu leen bët. Mm-hmm. ñooñu ñëpp teguñu leen bët. Mm-hmm. yàlla xam na loolu. Mm-hmm. parce que ñëwuñu leen ci taay. ñu leen ci dara. comprendre nga. Mhm. te jàppante na ñun li ñuy liggéey. Mhm. xam nga te bës nga ci bëgg daal. Mhm. wóolul nañ ko quoi. même boo daanoo sax baax na mais yow na am bës rek. moom ñaanatuñ ko yàlla. parce que ànd nañ ak di liggéey loo xamante ni dinañu may ndam. yaa noonu la demee mais fekk ay fan ci kanam di nga jël suñu combat. mais euh, Mbégane Ndour. noo gisee kàllaama ji ak ak violence bi ku waxal yaxala yàlla moom di nga xam ne carrément lamb ji moom bari na ay violence surtout que saison bi bii paas am na am na combat yu bëri yoo xam ne ko yëgul tamit est-ce que tamit loolu yow yaa ngi ciy bàyyi xel ak supporters yi. waaw loolu moom duñ koy rafetlu. Mm-hmm. parce que ñaari mbër préparé combat ba mu des une semaine. Mm-hmm. ay tour ñu ne benn mbër bi dafa gaañu. Mm-hmm. xañ na nit buy def sport. Mm-hmm. blessure daf koy yomb ah. mm-hmm. mënu ci ñàkk mm-hmm. mais am na ci yenn combat yi nga xamante ni ak xamoon ñu koy renvoyer ci mbër dafa gaañu pour man CNG bi war na ci jëlaat ay matukaay allo xam nga allo waaw waaw si ak fan ngay woote Daouda Tine Pikine Daouda Tine ma baax la naka ngeen yokkal kaddu tuuti sama ndeleen la yaa ngi ci jàmm waa naka foofu allo. allo. waaw Malick Daouda Tine. waaw. maa lay siyaare bu baax yokkal kaddu gi tuuti mbaa si jaam. ñu siyaare bu baax. alhamdulilah. bi. ndeysaan. di la ñaanal ndeysaan. bi dem ba ndeysaan Amina waay. Amina da mais Daouda Tine. parce te de maa ngi invité tey sa benn mbokk bogol bogol Mbégaan Ndour waaw Mbégaan kay bu ñaari tali moom lañ invité waaw sa mbokk bogol bogol ndax yéen bogol bogol moom nii rek allo maa ngi dégg waa wax ak moom ñu ngi koy siyaar ñu ngi koy siyaar bu baax waxal ak moom ñu ngi lay bëggee waa di nga ñaanal taw fee rek yaa si jàmm baax a baax waa ñu ngi sant bu baax kay alhamdulilah naka foofu nag baa lépp jaamu. waaw lépp a ngi ci jàmm tey ñëpp a ñu ngi rafetlu woote bi gars yi. dëgg la yéen lañ moom. waaw xam nga yéen moom mooy loolu sunu ay grand ngeen te lépp lu lu nekk da ngeen ciy nekk. dëgg la dëgg la. Mhm. waaw kon ñu ngi rafetlu xam nga woote bi bu baax a baax. Mhm. Mhm. ñun ñëpp benn lañ. noonu la demee nag. ñoo bokk bawul rek. billaahi. kon bawul bu xew la ñëpp am. ndeysaan rafet na trop mhm. waaw parce que Bawol bu demee ci kanam ñun ñëpp dem ci mhm. dëgg la dëgg la waaw deuxièmement jàpp mhm. dañ leen war a boole ñu nekk benn ndeysaan parce que ñoom la ñuy tiitaroo ndeysaan te tam ñamit ñoom lañ am ndeysaan lu te ñoom mënuñoo dem saa ñun ñu nit mënuñoo dem saa ñoom. dëgg nekk ñu ngi leen di tiitaro. Mm-hmm. te di leen ñaanal tawfeex bu baax. Mm-hmm. te gën a indi kanam yi mu gën a rek. Mm-hmm. parce que mbor moom boo nekkee seen moom. da ngay def nëpp nit ñi. parce que mbër moom boo amee supporter daanaka ñàkkoo dara. ndeysaan jërëjëf waaw kon sa yoon bi yaa ko xam li ci bëgg. ndeysaan jërëjëf daara ci jërëjëf. ñu la koy ñaanal defal ci la bu amin ah, waay amin amin amin. dem ba doon amin waay amin amin amin. Eh, nga ñaanal suñu Aliou bu baax nag. waaw ndeysaan daaw daal jërëjëf. parce que li def nii dafa am solo. ndeysaan. Mhm. waaw parce que ñun moom la ñuy tiitaroo tamit. Desa, jërëjëf waaw parce que li muy def nii daa war a yaatu ba ñëpp jot ndeysaan jërëjëf jërëjëf parce que li muy def daa am solo mhm. jërëjëf kon ñu ngi koy ñaanal yàlla defal ko tawfeex tawfeex amiin waay yàlla nangu ñaan yi di ziare waa télé bi yëpp ndeysaan jërëjëf Daouda jërëjëf ñaan sa kaw ci kanam rek ci lu baax ndeysaan jërëjëf kontaan bu baax nag jërëjëf kontaan nañ jërëjëf jërëjëf jërëjëf ndeysaan non laay nuyoo koku kay mu wote kay ba Pikine Daaro koku sama xarit la sama frère la maa lay nuyu bu baax baax di nuyu tamit kay wa Pikine bi ma jógee waa rafet naa ko tur maa leen di nuyu bu baax ñoom Assou Adama ñoom Lampé ñoom Baye Zial Pape Fall yéen ñëpp maa Aliou Senghor tamit malai leen di nuyu bu baax di nuyu kay Gilles Gilles maa lay baax Gilles Badiane Badiane Sakoura Ali borom Pikine malai lay nuyu bu baax a baax a baax yow moom ku la xool rek xam yow moom direct Pikine dégg nga kon maa lay siyaar bu baax a baax di baax mbër sama ben xarit ñu koy wax sëñ Bass Gueye takk jabar di ko ñaanal salaamaaleykum kenn di ko ñaanal jaba soxnaam si yàlla na ko jik seeni rawaan yàlla na ànd tey lay takk soxna daal waaw di rafetlu tamit comme li waa ji wax sa émission bi yàlla na gën a yaatu ba ñëpp jot si amiin waaw amiin mun a mais mbër li ne la lay def kay ci mbër waaw lu ndax lii ab soññee la ci yow déggoo li ma la wax nii mhm. yoon bi kese bi ñuy ñëw. Mhm. koñ ba la fa des moo ëpp fii li ñëw nii. Mhm. Mhm. te gars yi ne déggoo li ma la yoon dafa metti torop. salaamaaleykum. salaamaaleykum. gënaat naa continuer. yaa ngi dégg. ay coono yu metti leen jànkonteel pour egg si fii nii. xam nga loolu te nit amul kenn koo xamante ni yëkkati naa xaalis jox la. ñoom ñoo jën seen essence taal seen i moto ñëw indi ma. ndeysaan nga. kon loolu lu rëy la ci man. dina tax ma gën lu ma doon def benn ma yóbbu ko fukk. Mhm. xam nga. Mhm. te gis nga man li ngay gis ne. Mhm. awuma xaalis awuma dara. mais gis nga ñii nii. yàlla suñu borom xam ne ñoo ma tax di sonn. parce que buy jóg quatre heures di dem entraînement. te kenn du la yee ne la jógal dem entraînement. ndeysaan yow yaa rek la sa rafet. waa da ñoom gis naa ne ay borom bu baax lañ. comprendre nga ndax it ñoo doon toog ci ay nit yaru lañ. noonu la demee maasala xam naa mun mënuma jaati seen tur yëpp mais nag maa leen nuyu baax a baax. ñoom ñëpp ay borom baax lañ maa demee ndax ku leen xool sax xam ne yéen ay Baay Faal ngeen. billaahi di profité yéen wax naa bokk leen ci mafia saltel bi moom. <laughs> mais mbër. nu profité rek ñu ñu dox tuuti ñu ngi woon ci affaire du CNG. waaw léegi tamit est-ce que yéen entraîneurs yi. Mhm. ñu ngi wax ak yéen comme ay euh, dagg beeg ñoom seen ndax it gars yi lu nekk seen xaalis xaw naa bëri de. non métti na trop. wallaay métti na trop. ndax règlement yi tamit est xam ngeen ko yéen. non xam nañ ko mais des fois mbër li nga xamante ni moom lañ koy daggee. Mhm. lu ci ëpp mbër bi du ko def. Mhm. comprends nga. Mhm. parce que supporter mën na jóge feneen. day bëgg mbër mi. comprends mais mbër mi du xam kooku. parce que bëgg yàlla moo koy def ci nit. exemple may départ Grand Dakar. Mm-hmm. sama benn supporter jogo Pikine. Mm-hmm. xam nga bëgguma di ma sifur suivre. Mm-hmm. xam nga. bëggu mbégaan dóor ñëw. bokk ci koofaam dem stade. yaa ngi ma maam rax la quoi. comprends nga. xañ na bëgg la xañ na rax la. parce que lamb moom lépp la. parce que convent dina départ sax. nit ko xamante ni daf ciy par daf ciy profito. pour am dara ci lamb ji. kooku dañ koy boole ci lamb ji. ndax nitu lamb la andal salaamualeykum salaamualeykum allo. gën a continuer. comprendre mhm. kon kooku noonu. ki maanaam bépp nit boo xamante nii nag gis na mu def. Mhm. mu réagir dara mu këf téléphone jàmbur wala dara. Mhm. dañ naan waa làmb yi ñoom ñoo def loolu. parce que waa làmb la àndal. mais kooku làmb taxu ko jóg. mais xaaral. ak supporters yi. waaw ndax léeg-léeg tamit gis naa benn comme li mu lamb Papa Sow nu mu yàqoo. Papa Sow Siteu déggoo li ma la wax. Mhm. loolu kan moo ko yàq ki ko yàq la supporter la wala mbër. ah mais daal mais yéen la rek. waaw mais tëggkatu sabar moo ko yàq. waaw yéen la rek. tëgg tëggkat beeg supporter beeg mbër daal yéen rek ndax yaa tax ñu ñëw daal. déggoo kon new responsabilité bi kat ci yow la nekk. alo mhm. déggoo li ma la wax. Mhm. lamb ku mu tax a jóg. Mhm. da ngay jóge sa kër nga sañse lu rafet. xeeñ parfum bu neex. ñëw yéeg stade toog loos wala nga toog. kii tribune supporter. yaa xam foo mën di toog ci stade bi. mais yow pour man doo saltel quoi parce que da nga ne lamb nga bëgg te moom ngay seetaan si. parce que lamb boobu tey boo ko salteelee. comprendre nga. ñu arrêté lamb. xañ na mbër bi moom moo ci am ay jafe-jafe. parce que keneen ku mu mën di doon bu xëyee day dem liggéey mm-hmm. kon mbër bi moo dul liggéey bu nu arrêté làmb mm-hmm. yaa ngi dégg mm-hmm. nga kon mbër bi moo ci perte mais dama la bëgg a xamal ne mbër lu ci bëri lu ñuy wax ne mbër moo ko def defu ko comprendre nga parce que boo gisee Liss Ndiago combat am jàll li tax ñu aj ko moom defu ko parce que ay supporter am dañ koo daan ñu dajji see si sànni. Mhm. xam nga loolu moom mënu ci dara moom mu ngi ci terrain bi. waaw mënu ci dara moom. Mhm. comprendre nga. Mhm. mais nit nag lenn moo am. nit bu génnee këram. yaroo fa defoo fa dara. ba génn ci mbedd mi. man pour man waragul waratut a mën a yaru ko parce que sa parent ak sa sa ak sa yaay lépp lu ñu defut ci yaw ba nga nekk mag yàllaam jëm. pour man mbedd mi mënatu ko def ci yow. waaw loolu daam na. comprendre nga. kon làmb ñi nga xamante ni ñoo ñëw di fréquenter làmb. ñu ci bëri ci ñuy yàq làmb. ci boo bokk mais dañuy ànd ak lam mais ñoom mhm. lam taxu leen a jóg ndeysaan dagguma la tafa foofu jàppalem la mu làmb ndax it violence bi na kii nee na kay du ñoom yéen la supporters yi kon nag yéen yow la ko jinaa non pas supporters yi ah, sax waxuma supporter que ba tey ñu mhm. ànd. Mhm. waa di nuyu waale waa Taïba Grand Dakar. Mhm. booy wee may fa la dëkk di nuyu Baye Fall fa dëkk yëpp. waa comme mbër lu mu wax rek. wàllum supporter. comme sàng wax naa la ko tamit. nee naa la euh, mbër. entraînement. ak fulaak jom. Mm-hmm. yóbbu ko mm-hmm. da da koy may tuuti doole mm-hmm. mais mbër li ko gën a may doole dëgg dëgg dëgg mooy supporter xool Laurent Ndiago kii li mu bëre ak xoolal mbëri siiw yi yow teg nga sa bët ci Laurent non kooku xam na rek dinañ raw ci lamb waxal leen leen waxal la de Laurent boo ko bëggee wax danga ko da nga wax ay cat Tafa Boy Boy ñoom caat voilà continue non damaa xam ne wàllum supporter dafa bokk ci làmb parce que promoteurs yi léegi mun naa ne lu ñuy tëggal mbër yi léegi si supporter lañ koy xool comme li nga wax si combat Papa ak Siteu di ñaan combat bi ñëw Siteu am ndam si kawam ndaw lu sedd guy mhm. waa di wax ne rek mhm. ñun supporter yi mhm. ah ñun de. sama ñu ñu sama yi ñu mel ni man. su ñuy dem isaat. jàmm ak salaam moo leen yóbbu isaat. mais ñi am na ñoo xam ne. demuñu isaat dañuy dem isaat ngir leneen. mais ñun bokkuñu si loolu. ñun xam nga lu ñu gëm. yóbbu suñu mbër isaat suñu borom ma ñun ndam ñu ñibbisi. mais li kenn li li ma sàmba di def ak li ma demba di def. loolu suñu nekku si parce que ñun mësuñu dem isaat ñu jàpp fa ku bokk si ñun. dañu doon agressé wala doon sàcc. Mm-hmm. wa lol moo tax loolu ñun suñu yoon nekkagu si quoi ya mm-hmm. le suñu yoon nekk nak moy mm-hmm. ñi ngi dem su pat suñu mbeur tag suñu biey ziar tamit waaw bu jaree tamit ñu tek ci lamb ji sax ko gëm nañ ko yaakar nañ ko waaw bu jeexee ñun fan jugé won ñun ñëpp fofu lañuy dajé waat kon mën na ne violence boobu nga wax ñun gun ci té yalla buñ ci bokku kon di di wax ñi ci nekk ñu xamné lamb lamb la kon buñ ci profito di ci wut sen dara euh, quoi Bagaane Ndour am na benn promoteur boo xam ne commissaire na ma nee ma kay ku sa ménagère. waaw man Sowru Fall mooy sama ménagère. Sowru Fall Sowru Fall mm-hmm. xam naa kay mu ngi seetaan. Mm-hmm. Oh, tamit euh, ba léegi Bagaane Ndour lamb métti na est ndax yow am nga yow ñu ñu lay jàppale. <laughs> waaw métti na loolu moom mooy géej gi am na ndox. Mm-hmm. lamb moom boo ci sax xam ne lamb métti na. képp ku ciy yëngatu. na torop. parce que des fois nga jógee entraînement sax moy lool hmm xam nga. hmm da nga koy hmm wala des fois nga dox té tëdd. ndaysan comprendre nga. hmm mais tafa mi. da fa toog un jour parce que sama troisième combat bi ni béré hmm mhm. xamanté wu ñu mais ñoo bokk benn koñ. Mhm. bobu xamanté bi démé wul non hmm dafa am ben jour mu woo ma seen kër ci kaw. hmm comprendre nga. Mhm. ne ma mbeur dama bëng lo non def ben nga yokku ko. hmm comprendre nga. instant mm-hmm. yi muy reer muy añ muy ndekki lépp tout. Mm-hmm. lépp loo ci bëggatee def yéegal si kaw nga def ko. Mm-hmm. comprendre nga. damay génn sax heure reer jot ñu tegal ma reer. comprendre nga. te loolu xëy na seen baax kese la. xam nga di profité di nuyu papaam. xam nga père Tafa. di ko bëggoo bu baax parce que lépp moom la. su ko neexoon këram duñu fa traîner. mën naa ne def instant yi ci njabootam laa bokk. parce que ni ñuy jàppee seen doom yi noonu ma jàppee. ndeysaan di bëgg waale màgget soxnaam tamit sa xalit Lass Faye. Lass Faye maa ngi ñëw si mhm. moom. Mhm. kooku sama lépp la. xam nga. Mhm. màgget soxna Père Tafa. ñoom Serigne ñi ñëpp. comprendre nga. ay ñoom Baye Dame Serigne. yéene bi gars yi am ci yoon moom lañ am ci ñoom. ndax daa mel ni émission baa ngi waaj waaj a jeex. daanaka boo xoolee ay sept minutes ci des daanaka. kon il faut il ñu jéem dox bu baax a baax a baax a baax euh, ndax it est-ce que tamit yow bokkoo ci mbër yi nga xam ne ñoom dañuy taamu ay combat ay man duma bëreeg diw duma bëreeg kii comme yow mi doon baw bawol ne yow doo bëreeg kay waa bawol est-ce que yow bokkoo ci. non ci. Mm-hmm. wax dëgg. Mm-hmm. bokkuma ci mbër yooyu. parce mm-hmm. bu nu jox tamit combat bu baax rek. dañ koy jël. bëri ku mati doon ay xale la. bati bala joon sax. déggoo li ma la. bala joon du mbër. Yékini moo moom. waaw ñun instant yi moom yàlla def na waa écurie Grand Dakar kese lan dut bëree. waaw mais maa ngi nu nuwaat sax ay ñoom Boylo. voilà kay sama xarit sama doom ndey moom tamit am na combat ñu ñu lay ñaan si ci yow tamit ci sa combat yi yàlla na suñu borom may ndam Boylo kay maa ngi baax a baax di nuyu nuyu champion nekk Nguñaan yëpp maa ngi lay nuyu baax a baax a baax a baax di di saan wala sax yow doo matal mais nag maa ngi lay nuyu yéen ñëpp. waaw xam nga di profité di nuyu sama benn papa. dafa mm-hmm. décédé at yi ci ginnaaw. mu ngi nii ndeysaan Tafa Seen. Tafa Seen Ndengler la dëkk. yàlla na ko yërëm. comprendre nga. Mm-hmm. mu doonoon grand bu am yéene ci man. Mm-hmm. étalé la nekkoon doon woon toog une semaine te envoyé moom vocal. ne ma mbër ci loo nekk. naka entraînement yi. dafa décédé daaw ci bi ñu tabasee ba pare. ndeysaan xam nga amoon ci yéene man ci amoon yéene ci man trop. comprendre nga. di ko ñaanal suñu borom mu xare ko àjjana. comprendre nga. di bëggewaale ay doomam yëpp. parce que ñun ñëpp ay doomam yëpp xaj na am na ñoo xamante ni ñoo nu mag foofu. Mm-hmm. te fu ñu dajee ñun dañuy jox per. Mm-hmm. cer per la ñuy wax. te ñun ñoom ñoo nu mag foofu. Mm-hmm. comprendre nga. kon mënuñu toog plateau te gërëmuñu leen. di gërëm benn doomam sunu moroom la Birabo seen ak ma Diop xam nga ay ñoom seen ñëpp ñu ngi kaaw ba. mais est-ce que tamit mbër. yaa ngi compétir kay ci mbapat yi waaw ñu ngi compétir parce que daaw dañoo amoon tuuri gàllankoor. moo tax takkuñu ngem lu bëri. saison daaw bi. mais jeex na. mais jeex na incha allah ñu sant yàlla bu baax. commencé nga ren wala commencé na. Mhm. ñu ngi ci kawam. Mhm. dama gum nga wala. déggu ma dama gum nga adressé wala ñoom. si non foofu demaguñ fa tere gaal gi waaw demaguñ gaa yow moom xam naa moom mooy loolu. mbër. waaw Moustapha daa mel nag émission baa ngi baa ngi waa jeex de. Mhm. looy conseil mbër. waaw mbër li ma la wax rek. Mhm. incha allah entraînement yi dina ko gën a yokk. Mhm. incha allah bientôt boo ñu boo invité waatee. Mhm. di gisaat mbër mu tollaat ne neen ndax dinañ ko gën a jàppale. maanaam tolluñ leen daal. non maa <laughs> waxoon dina tollaat ne neen waaw waa dina gën a rëy dina gën a. jël ay doom ñëw <laughs> di wax gars yi di woo gars tamit ñu jàppale ñu. Mm-hmm. waaw ñun dañoo néew ñuy jàppale torop si làmb mm-hmm. di wax waa ñaatal waa Grand Dakar mm-hmm. waa Taïba xam nga borom sareet bu ñuy bëri ñëw jàppale ñu mobiliser ñu waaw di sant mbay sax xam nga daa bàyyi itam yëpp ñëw Taïba la dëkk sareet lay dawal waaw di ko woo ay moromam yëpp waaw ñëw mobiliser ñun supporter rek lañ bëgg ak ku ñuy jàppale si làmb li si des ñun dinañ ko bàyyil suñu waar quoi waaw ndeysaan Agnès Diouf te sama doom baay maa la nuyu bu baax di nuyu kay ñoom kubis borom Pikine Salimu Ndaw nuyu naa la Aminta maa lay nuyu bu baax a baax a baax di nuyu tamit waa famille Guèye maa leen nuyu bu baax sama yaay Ndey Jaañ maa lay nuyu bu baax a baax di nuyu ñoom Père Guèye nuyu naa leen di dem raw raw di dund waaye sama xale sama doom day nga xam ne chaque jour maag moom ñoo doon ànd fii nii kay ci émission bi muy Bamba Xaadim Bamba Jaañ maa lay nuyu bu baax di nuyu Ndey Njaay kay mu ndaw mu ndaw mënut a kay sama yaay ji ñoom Njaay Jaañ ñoom Aysa Jaañ ñoom ayda dadaa yëpp maa leen di nuyu bu baax a baax di nuyu kay waa kër gi ayda mbee nuyu naa tamit yow tamit sama mag ju baax jooju. mbër waaw nga may ñëw ñu këram xam nga. di profité di nuyu waale suñu booy. jeexagul après dinaa ñëwaat ci yow. waaw yaa ngi dégg mhm. parce que ñii nii il faut ma jaale leen. comprendre nga. kii nii sama rakk la. Fatou Gningue. Fatou Gningue mburuwaay la dëkk. xam naa ko. yaa ngi dégg dama desete daaw suuru màggal xam naa ko bu baax a baax xam nga dafa ma tax depuis muy nekk xale ba léegi ndeysaan yaayam bëgg ma trop merci ndeysaan xam nga yàlla di def xam nga muy màgg ba sama xarit tax ko ndeysaan muy def accouchement yàlla xam nga def li gën xam naa ko comprendre na mu dëkkoon mburwaay moo dëkkoon kër bure mbuka waa waa kon di ko ñaanal suñu borom fàtte kii sama rak la Sëñ Saliou Sène danoon toog sama cimikaay bi may bëre bawal ndeysaan ma noon wax xaw kañ ngay commencé bëre arène nationale boobu ñu ngi koy tabax ndeysaan xam nga amoon yéene ci man mun naa ne suur bi may njëkk a teg sama tànk arène nationale marqué na ma trop parce que doonal na loo xamante nii moom la doon mébét ndeysaan comprendre nga mm-hmm. yàlla def fekku ko fi mm-hmm. xam nga di ko jaale yaayam ndeysaan xam nga ndeysaan di ko jaale yaayam bu baax a baax nan yem foofu euh, mbër hmm. métti na mais euh, yow tamit lan ngay tàggu ak lan ngay dénk gaay waa nu waajal kay Mbégaan Ndour ak yeneen kay yu bees nga tamit waale nuyu waale kay di ah. nga bëggoon xaa xanaa di dellu santaat yàlla rek mm-hmm. di julliwaat si yonente bi mm-hmm. di sant Mbégaan tamit mm-hmm. di ko santaat bu wér parce que mën naa ne léegi c'est la première fois ma koy def di mm-hmm. sant sama mbokk tubaay sama yaay sama soxna mm-hmm. ak sama rakk soxna yi fa nekk sama mag soxna yi fa nekk ak sama mag yi mm-hmm. jigéen yi fa nekk di leen sant baax di di sant sama nijaay yi ma nekkal di liggéey ak moom di wax ne ñun xam nga képp ku bëgg fer rek boo ñëwee Grand Dakar ñu jaar wala ñaatali di sant sama mbokk bool bool waa défoncé di leen sant bu baax di leen gërëm di leen nuyu di wax mbër rek mu gën a góorgóorlu parce que ñun mun naa ne isaan tax na ñoo jug. Mhm. te mbooloo du jug topp sa ginnaaw. Mhm. yow booy bëree waroo xool sa bopp da war a xool mbooloo bi nekk sa ginnaaw. Mhm. di ñaanal Double Moteur si combat ak Mama Lamine yàlla na ko yàlla may ndam. Double motoor bu baax a baax ndam lu sedd guy yi. di sant ñëpp di gërëm ñëpp. di ñaan yàlla mu taxaw ñi gën a woowaat nit ñi ñëw jàppale ñu. li ma la wax rek. ñuna ay mm-hmm. jappale dañ ko manké torop torop mm-hmm. billahi mm-hmm. wallahi taala manké torop nang trop ñu nañu nang wa lepp mi ay jappale mom dañ ko manké di waat ñëpp ñëw jappale ñu quoi di la sant bu baax di la gërëm di sant wa pigine nga jógee waaw di la santaat bu baax baax di ñaanal sama benn mak brigé yàlla na ko yërëm te xaar yalla nako yalla yàlla te xaare bi àjjana sama doom baaram mu saison ma saison rek ci mom te rëkkuma ko ben yoon te ñaanal fa mu teud ak serigne yalla suuf sedd seen kaw di ñaan yàlla daal may gudd fa dañ di sant sama rakk yi ak sama booy yi ma àndal yëpp mhm. waaw di sant sama ñaari waajur baax jërëjëf euh, tamit noonu laay koy nuyoo tamit euh, <laughs> ndeysaan maay nuyoo tamit kay waa Bambey waa réew ma waa Réfane waa Ndingler yëpp maa leen nuyu bu baax a baax ndax man tamit bool bool laa ko comme yéen kon di nuyu waal tamit sama xarit El Hadj xam naa gën naa ñëwaat ci yow sax yow maa nuyu baax nuyu koy waa Mbour hélas ñu ngi maa leen nuyu bu baax ay taalaloo ndeysaan sama mit chrétien ak mag bi ñoom Bas Ndama maa leen nuyu bu baax a baax a baax euh, di di nuyu tamit sama gars yëpp ñoom Fallou Galas Ndiaye jës ne nuyu naa la ñoom Aline Diouf borom Bambey maa nuyu bu baax Awa Fall nuyu naa la borom Réfane mbër mm-hmm. loolu tax bu fan nga bëgg a yóbbu la waa lamb moom tegloo xam naa moom fooy bi exemple fooy bi nii xam nga waaw mënuma leen ñàkkal lim quoi waa mhm. xam naa ko da xaw a gaawant voilà ñi may jàppale ci làmb la mhm. xam nga di ci jiital El Hadj Faye Mbourwaay mhm. émission bi bu amee moom moo tax El Hadj Faye nit ku baax sama grand sama lépp dafa ma def comme rakam bu mu bokkal ndey ak baay noonu la mel ci ñëpp ah comprendre nga kon mënuma toog plateau te du ma ko gërëm xam nga di gërëm Papis Fall mu ngi depuis Damak ak ñoom Touré xam nga ñoom Wuri mm-hmm. ñëpp. Mm-hmm. comprendre nga. Mm-hmm. Ousseynou Faye. rakku Elas la. ndeysaan depuis état maa ngi koy gërëm. xam naa ko ak beneen Ousseynou bi Aliou Tine. voilà Cheikh Ngom. xam nga Samba Ndeleng Ndourwaay. maa ngi koy bëggee day sonn ci Grand Bàcc. Diouroup. moom day sonn ci sama ay combat. ndeysaan tey jii rek mënoon naroon a indi ci oto. mais xëy na job bi moo ko xaw a téye. Grand Tidiane. moom. te bi ñuy bëre ba léegi moo ñu abal appartement ak lépp. ndeysaan di sonn ci ñun sànq bi ñuy ñëw de dafa yëkkati xaalis jox nañu ne yokk lañ ci seen paas. ndeysaan xam nga. Mm-hmm. di bëggee Kiné Mbaye. Mm-hmm. moom day sonn ci ñun. Mm-hmm. xam nga màgget. di bëggee xam nga Buri. xam di bëggee ñëpp Serigne Taximaan. xam nga di bëggee Amet. ñoom maam Cheikh. am di sama gars yi gàtt. xam nga maaf. xam Rio. bëggee rek maa ngi yéen a faat bëggee rek bëggee yooyu ñu ngi leen di ah, ah. sant Aliou ñu il faut ma sant leen mun ta ñàkk parce que bër mu ndaw la quoi naa la ko sant sonn ci sama ay combat mm-hmm. sama combat bi passé bi mm-hmm. combat bi bi nekk ginnaaw suba la mm-hmm. ci lan dugg ci koñ bi ak sama gars yi nii toog ñoom Sadibou ah, ñoom Sëriñ bi xam nga Modibo Sëriñ Bër gars yëpp ñoom Abdou Lamine ak Maysal comprends nga ci lan ket cinquante mille pour añ kon ñooñu mënoo toog te doo leen sant xam nga di bëgg mm-hmm. ñëpp ñoom xama Modou Gassama mm-hmm. ñoom Grand Issa mm-hmm. ñoom Papa ñëpp ñoom seeni ay Mbooja gaa yëpp tu ñu ngi leen di bëggee bu baax a baax baax di leen wax ne gis nañ jàppale bi aussi ñu yokk doole seen bër tamit jàppale ko ñu waaj beneen combat xama di bëgg ñi nga xamante ni ñoom laa judoon dool depuis xale ba léegi ñoo nekk xama ñoom Abdou Thiaw Talla Ngom Xaadim Seen xama Baara Seen Xaadim Fay xama Ibra May Baye Sëriñ Laay Fay Abdou fay mhm. Modou Ngom mhm. Samba fay mhm. Kader Ndour moom tiset bi moo ko defar xam nga nekk xale di dóor waar nekk kolobaan mhm. xam nga di defati sa yu rafet mhm. xam nga mhm. di bëgg ñoom si bu xees gaa yëpp añaa xam nga yàlla dafa def mu am na mu demee xam nga di ko bëggee mag benn copain caabi feete leen ginnaaw waaw ñu leen di ñaanal suñu borom ndeysaan xam nga fépp fu ñu nekk suñu lañ bopp voilà yàlla di ko ñaanal baax quoi ba del si waat ci suñu biir yàlla nga di bëggee waat mafia bi yëpp di wax ne prochain combat déggoo li ma la wax terre bi la l'assemblée nationale mo kay man man ma ñew kay wa di profito rek di ñaanal aña mom muy wax diko ñaanal suñ borom génné ko fa nekk di sant sama ben grand baax Elimane Gueye Elimane Gueye mu Serigne Saliou ñaar Elimane bu Serigne Saliou maa ngi koy sant baax di ko gërëm maa ngi koy sunu mag la di ko ñaanal prochain combat mu jàpp ci ak maam booy Elimane mu jàppale ñu baax Elimane ñu koy woo mu jàppale ñu baax maam booy Diaw ñu ngi koy ñaan mu sunu prochain combat mu jàpp ci dig nañu ko comprends nga ak kii maman Ndeye Sadi Diop Dieng. Mm-hmm. Jean Baptiste. Mm-hmm. Ilimane bu Serigne Salib. Mm-hmm. ak Jibril Wade. xam nga bépp autorité bu nekk Grand Dakar. ñu ngi lay ñaan nga jàppale Mbégaan Ndour. parce que xale la nekk ci làmb tamit. jërëjëf jërëjëf incha allah. jërëjëf di bëggawaat gaa yëpp mafia bi. xam nga mafia bi jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf. mooy loolu mooy sax mooy jiite mafia séeréer yi. jërë ngeen jëf jërë ñëpp la. jërë ngeen jëf jëf noonu laa leen nuyoo tamit euh, maa ngi sant ñëpp maa ngi sant ñëpp maa ngi sant xam naa tey moom émission bi ma def tey yaakaar naa kay mosuma ko def émission boo xam ne xam naa lii moom Mbéguane Ndour kay boo amee kay combat moom ku yéex yow du yow du am. ka waaw noonu la demee nag am place li des koñ ba moo ëpp fuuf maa ngi sant gaa yëpp xam naa nag mënu ma jaar seen tur mais nag sant naa leen kay yéen ñëpp ndax it man ak yéen ñoo far. Hmm. doonay jël ndox. ndeysaan ñun ñëpp ay jeunes lañ. di profité di la ñaanal yow mi tamit. man moom. xam nga xam nga xam naa sama waay nga yemal foofu. voilà <laughs> bi doon ay télé yu mag. am na ñu lay dégg fépp ci Sénégal. incha allah sant naa ñëpp. Moustapha. malaaka yi sant bu baax. waaw di la sant bu baax. kontaan si rek. Marc Serigne Sallou. ñaaw. wallaahi tiit gis naa ne. sama lépp la ku taxaw. damaa kontaan si yow rek yëpp. xam ne day sonn ci naa leen mbër. ma sant bu baax. ñu ngi lay sant bu baax ñun ñoo la war ndax euh, nu mu selay kay yombul tiit ñëw nga indi yar indi kay tegin tiit xam naa ne man maa lay wax nii xam naa ne kay champion ndax yaakaar naa ma sam plateau bii ku nekkul champion bokkoo kon am na loo loo profité la wax xamoo ma man mais man xam naa ndax man damay dund làmb. dëgg man su ma nee xam naa rek xamal ne xam naa la. dëgg voilà noonu laa tàggoo ñëpp namit. Aliou deux minutes rek. Mhm. dama juum xam nga sama waa fi may liggéey dama. waaw boo gisee tiset bi nii ñoom laa bind si ginnaaw mm-hmm. entreprise la boo xamante ni ñëpp ñu fa nekk sama ay papa sama ay grand frère xam nga mm-hmm. di leen woo ci combat bi tamit ñu ñëw mm-hmm. jàpp ci parce que mën na ne combat bi léegi mu taxaw xam nga père Badou Ndiaye ñoom père boobu xam nga Adama Diop utile ñu may signalé de ñu ngi koy bëggee xam nga ñoom Ibrahima Ciss Daouda Ciss jërëjëf ñu ngi leen di ñu ñëw jàpp ci affaire bu baax Papis sama doomu ndey ndeysaan ñoom jigoo ñëpp ñu ñëw jàpp ci jara jëf jërëjëf jërëjëf noonu laa nuyu tamit euh, ñi doon seetaan TP TV yëpp maa maa leen nuyu baax naa di leen joxaat ko dig day eh, ba beneen yoon incha allah ak beneen kay euh, champion yéen yéen waa TP TV kontaan nañ kontaan nañ ba beneen yoon incha allah ak beneen kay champion ci kaw ci kanam jërë ngeen Elle les bienvenue à Univers du Savoir School, les trois au service de l'éducation et de la formation. Univers du Savoir School, un établissement d'enseignement moderne dans un espace spacieux et sécurisé. 6 à Tiawenpel, rue Pharmacie. Au groupe scolaire Univers du Savoir School, une équipe pluridisciplinée a expérimenté dans le travail, respectueuse des valeurs ancrées dans la discipline, le savoir, savoir-faire, savoir-être, s'active pour vous. Univers 3S école Boubès, ou Bine du du préscolaire au secondaire deux langues au choix anglais arabe avec une salle informatique entièrement climatisée qui permet aux élèves de s'épanouir. Les places sont limitées et l'informatique est obligatoire dès la sixième. Au groupe scolaire Univers 3S, c'est le savoir, savoir-faire, savoir-être. Les 3S au service du développement. Numéro téléphone 76